toujours dans votre acte du jour du mardi 17 octobre 2023 ginnaaw Bindjogé Thiès dañuy Kolda Kolda le nouveau directeur général de la LONAS, Abdourahmane Balde dit Doura foofa Kolda Nak, weekend bi passé ma dafa delluwaat buum ca mboy garat parce que lu toll ci vingt kits scolaires mom le réunir yóbbu ko jàppale ko élèves yi nga xamante ci ouverture des classes bi ñi ngi fofu ca colda ci bir loolu nak xamal na len ni ko togul bañu fal ko directeur général mu indi fa vingt kits scolaires ndaxte daf ko don def te bobu déggul directeur général déggul PCA déggul ministre déggul dara liko amalon solo ku nek xamna ni que ki di Abdourahmane Baldé c'était un jeune Koldaoise Koldois bi nga xamante chaque jour il était au chevet de sa population ñu gën ko xam ci walu social ñu xam ko ni mu doon jàppale jeunesse am ci walu social ni mu doon jàppale wa Kolda ci Covid 19 bi bu mu ñëwé ba tay ñu ci bëri saalituñu mu dem ci côté sportif bi côté nawétan bi tay nawétan bi fi mu yemoon ba final bi fi mu yemoon mu yëkëti ko yokkat ko ba nga xamanteni é egg na ci kaw ba jeune Kolda yu bari bëri bëggootuñu émigrer di dem Dakar wala di dem seeti feneen pour outil liggéey mu leen di jàppale ci lu bari donc yaakaar naa ni tay suñu démé ba ñu nommé ko directeur général de la LONASE lenn rek la ci def de dafa ñëw yokkat affaire bi mais dañ ko ci fekkoon ba nopi en tout cas nañ à ni que ki di directeur général de la LONASE di Abdourahmane Balde, Doura ñu dippé ko le plus jeune DG donc koku yakarna ni tay liko ko soxal maanaam askanam liko saxal moy victoire Amadou Ba li saxal moy développement bi nga xamanteni président de la République jël na ko ci plan Sénégal émergent pour que lolu ñu xol naka lañ koy continuer ba mu réussir Sénégal mën ci suqal li ñu mën a jàpp daal di Abdourahmane Doura balde fofu ci Kolda distribuer encore lu tollu ci vingt kits scolaires comme ni ñu koy waxé rek dafa delluwaat buum ci mboy mboy ba donc je crois que li lañuy xaar ci DG li lañuy xaar ci ministre ku ci nek fuñ la far war nga xol ni que sa askan naka nga leen lañ mën a jàppale ci li nga xamante ni jox nañ la ko mu leer la que yow sa askan moo tax tey ñuy jox la ko donc c' très important ci biir loolu tamit yëkkati na fa discours ba noppi lancé waat li nga xamante ne mooy campagne de parrainage bi. joxe fa fiche bi nga xamantene moy fiche Benno Bokk yakar ne ko ñepp xam moy numéro 117 numéro 117 bobu dal. nañu xam ne ko moy fiche de parrainage bu baax bi moy fiche de parrainage bi nga xamantene tay mo meuna indi continuité mo indi tay fii ak 2024 2025 lepp lo xamantene jafé jafé Sénégal la won ñu safaral ko te su jëmee ci walu investissement jëm ci walu ay tali jëm ci walu ay stade jëm ci walu ay aménagement yo xamantene ñing koy gis loolu président de la République Macky Sall égalé nako paré lan mo ci des ñu xol koom-koom bi dem dem ak dikk bi naka lay gën a yombee agriculture bi naka lay gën a yombee ba nga xamante ni kilo ceeb mën nañ ko jëndee lu toll ci fanweeri dërëm litre diwlin nga xamante ni mën nañ ko am ci moyen de 500 francs je crois que la continuité bonne fiche boobu mooy le numéro 117 numéro 117 boobu du kenn nag ki nga xam ne mooy kii di candidat coalition Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba donc yaakaar naa ci biir loolu yëkkati na fa discours ba noppi waa Kolda aussi témoigné ko loo xamante ni lu rafet la nee nañu diw baax na ndax mbokk yaa ko wax nañu déglu ñu vidéo bi dellu si waat biir Kolda. déedéet Abdourahmane Baldé mooy produit bi nga xam ne dafa neex a jaay. te muy dëgg bu jaay boppam la. waxal lépp Abdourahmane Dura Baldé. kon Abdourahmane Dura Baldé ko social kon Dura Baldé. ndax euh, Abdourahmane Baldé quand même euh, taamal nañu di ñu defal cérémonie bu mel nii en tout cas depuis mu ma nekk fii chaque année maa ngi constaté en début d'année dina def tout pour joxe ay scolaire parfois même mu sillonner les établissements du département jox xale ay groupe loolu moom naa ko seet ku nekk xam nga ne période bu ñu nekk nii période bu am solo la ci parents d'élèves bu metti la tamit ci ñoom donc bu ñu amee koo xam ne day jëw di leen jàppale ci ay jumtuwaay yu mel ni bugit ak ay sa ak yooyu dañu def lu dul di ko ma waɗi welti e invitation he waɗi noon min belti invitation he ko gueɗe ɗiɗi d' abord ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hunde mawdude par ce que ko action de développement ko hunde nde ganduɗa aussi wallat jinnaɓe ɓe ganduɗa ɗen jogui caɗele pour faabade jande ɓiɓɓe mumen ɗum noon kala mbo min jiiɗi waɗa no ɗum ni minen maire ji département yero fula koye ɗum tan ɓe daari min garat min tawtore ɗimmel nguel min jii pellital maɗa

o wawta haalde haalani politique miɗen ñaagui gala arɗo ɗo tawane no waɗi parene amadou ba ko ɗum wallata dura ñagaromo walla e ko ɓuri ni gala arɗo ɗo kadi tawa non seulement waɗa parene hoore mum mais hara no waɗi parene ɓuuri yimɓe sappo donc enen ko ɗum ñaguiɗe yimɓe ɓe ene weltano dura eɗen ñaagui hitande foof o waɗani assalamu jarama kon yaakaar naa ni ñoo seeraandoo vidéo bobu nga xamanteni mi ngi amé fofu ci Kolda weekend bi ñu génn ki nga xamanteni ni muy Abdourahmane Baldé Doura le nouveau directeur général de la LONAS ginnaw bu mu distribuer lu toll ci 24000 kits scolaires ñooñu nga xamanteni moy mooy élèves Kolda yi.